Euh, banjak yi dañuy daal di dikk ci beneen ponk waaye bi nag wàllum mbay la ñuy waxtaanee ni ki démb gis nañ ni que prix bi génn na jóge ci deux cent quatre vingt dem ba ci trois cent cinq francs lu jëm ci wàllum euh, gerte gi donc euh, baykat yi jot na ci am ñu nga xam ne jot nañu yëkkati seen kàddu léegi daal tonne bi am na une hausse vingt cinq mille francs Babacar. waaw le 5 décembre prochain. Mhm. moom lañ fas yéene door lu jëm ci wàllum campagne li nga xam ne moo di arachidière bi. maanaam commercialisation lu jëm ci wàllum gerte gi mhm. loolu nag mu yóbbee woon démb ilimaanu jëwriñ yi ci jëm boppam amulu ëngam loogu yaatu lool ak ñi nga xamante ni ñoo di juróom bi ñu dénkee pàcc gi jëm ci wàllum euh, mbay mi mhm. waaye ki nga xam moo yor lu jëm ci wàllum euh, armée bi ak mhm. li nga xam moo di ministère de l'intérieur maanaam ki ñu dénk kaaraange biir réew lu jëm ci wàllum sécurité bi mu nekkoon ëngam loogu boo xam ne dafa doon gën a dellu si waat ci aspect technique yi nga xam ne moom lañu fas yéene àbbu ngir lu jëm ci wàllum njaayum gerte gi ci ren gile nan lañ koy amalee bu ñu ko waxee nag mooy nawet bi bu nawet bi wàccee nag nawet bi bu wàccee dañuy dugg ci wàllum njaayum gerte te njaayum gerte yooyu équation la mos di doon ci biir réew mi. Mhm. ñeewal wàllum prix bi ba tax na ñu baree bari ci ñi nga xam ñoo di baykat yi moom lañ doon xaar mais fi ñu tollaale nii mooy état bi démb dafa doon ëngamloo pour génne ab njëg njëg boo xam ne mooy kilo gerte gi nangam bi lañ koy jaayee la ñu retenir mooy daaw. dañoo amoon ñeent fukk ak juróom-ñett dërëm mhm. loolu nag dañ ci yokk leneen mooy lu toll ci juróomi dërëm mu yóbbee fu mu toll ni juróom benn fukk bu toftal dërëm lañ ko fas yéene jaay maanaam trois cent cinq francs CFA mooy kilo gerte gi ci atum 2024 2025 loolu mhm. lañ koy jaaye leneen loo xamante ni dina ci bokk mooy lu weesu loolu parce que dañuy mobiliser également ci li état bu Sénégal wax mooy ci wàllum ton yooyu la dina toll daanaka ci 500000 tonnes yoo xamante ni jot nañ koo wax mais 100000 tonnes yi ci jëm boppam dina ci bokk benn ak pàcc ci ñi nga xamante ni daanaka ñoo jëm ci wàllu huile yi. Mhm. yeneen 400 no ci li nga xam daanaka moo di yeneen secteurs yi la ñuy soxla mais 400000 tonnes yi ci wàllum huile moom lay nekk mais état bu Sénégal li mu jël comme décision mooy lu weesu jël njëkk pour daal di ko joxe mooy nañ fexe de sorte que gerte googu noonu. ci li nga xam moo di ay point de vente ñu daal di ko installer au niveau national mu nekk ay secteurs yu bari loolu te wuute mais bu weesoo loolu ñu sécuriser de sorte que gerte googu yëpp doon loo xam ne dafay des ci biir réew mi fépp balaa ñuy demee ba am li nga xam ne Sénégal soxla na ko mu doyal ko ba mat sëkk ba tax na moo waraloon teewaayu sax ministère des forces armées mhm. ak ministre de l'intérieur daanaka boo koy xool ci biir li nga xam moo di conseil interministériel boobu lay élimaana jëwriñ ñi jiite woon maanaam ëngëmloo bi nañ def de sorte que frontière ñu surveiller ko mooy ñaax bi mu joxe mhm. mais ci biir réew mi de vente yi ñuy def ak ci biir seko yi gars yi a sécuriser léegi nag beneen bi ci gën a am solo mooy mesures yi nga xamante ne jël nañ ko wàllum financement également dafa doon mbir moo xamante ni am na ci solo lool. Mhm. ndax koppar yi nga xamante ni génne nañ ko. te banque bi ni mel daanaka jarul pour publicité dix-neuf milliards de francs CFA yoo xamante ni dinañ ko génne ci genn ak pàcc pour daal ko baaxee li nga xamante ni daanaka moo di.

Mhm. fas yéene ko nal ba transformé ko mu nekk dëwlin bi ñuy jaay à l'intérieur du pays mhm. loolu nag tax na ñoom lu weesu li ñu am ci mën-mën dañuy dem également léegi di sëkk banque yi ay bor wala ay lëkkalante yu leen di may ñu mën a jënd jiw boobu mhm. ku état bu Sénégal fu mu toll nii thème bi comme fixé waale ne ko dañuy xaar lu jëm ci wàllu financement bi tam mën a dem ci gën a pàcc ba toll ci ñeent fukk ak maanaam ñaar ci ay milliards suñu ay koppar léegi nag loolu dina ñëw fekk ci waat cent milliards yi nga xamante nii ca ndorteel ga mhm. moom la état bu Sénégal génnoonu pour daal ko bécc ci li nga xam ne daanaka moo jëm ci wàllu mbay moomu la beneen pàcc nga xam ne dina taxaw mooy lu jëm ci wàllu mbay mi ak li nga xam moo di collecte gi mhm. dañoo fas yéene mettre en place des entrepôts li ñuy wooye ay entrepôts de collecte yoo xamante ni yu prioritaire waaye tam am efficacité nee nañ moom la ñu fas yéene teg à l'intérieur du pays lépp ngir jublu ci opération collecte li nga xam ne moo di semence bi ci waxtu itam dina ci bokkaale achat ak vant bi nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum arachide bi mm-hmm. parce que boo demee ci ci li nga xam moo di kaw gi xaw ma ndax nit ñi dinañ comprendre ni muy demee mais li ñuy wooye ay seko li ñuy wooye ay mm-hmm. seko bu ñu waxee seko seko mooy yi nga xamante daanaka moom la ñuy tabax ci yenn kaw gi ci yenn dëkk yi nga xam ne. Mhm. parce que foofu la yeneen dëkk dëkkaan yi di faral di jëlee di dajale di indi pour ñu amal lu jëm ci wàllum njaay mi au niveau ci seko boobule. Mhm. bu ñu jaayee bu pare moom la ñuy stocké bu ñu stocké ci mhm. seko bi. après opérateur yu mag yi foofu la ñuy ñëwee jël. après di yóbbu ci dans les grandes li nga xam ne moo di usines yi pour ñu amal ñoom lu jëm seen wàllum transformation. léegi nag surveillance bi war a am foofu noonu dafay dellusiwaat ci geneen mooy nan la ñuy def ba ci biir luuma yi. luuma yi nga xam ne dafay am ci dëkk dëkkaani parce que luuma yi dafa daan nekk ci concurrence gu mag ndax chinois yi daan ñëw di jënd xam nga cette année si mbir mi dafay changé ñoom bi ñu mën a ñëw di tee di toog di def di jënd comme ni mu leen neexee mhm. après ñu jël yóbbu ca bitim réew kon autorisation boobu amatul léegi comme autorisation boobu amatul faaw ñu amal une boo xam ne dafay dem au niveau pàcc pàcc bi la ci kaw gi même ba ci mhm. biir luuma yi mhm. pour di moytu fu nit ñi mën di wutee prox ndoll pour di jaay ñoo xam ne bokkul ak opérateurs yi nga xam ne ñoom la ñuy délégué niveau national léegi surveillance boobu tam dafa am service yoo xam ne ñoo ko war a mëne du ministère de l' intérieur tamit ci biir dina laaj moom tam beneen taxawin koo xam ne dina ko am. tout comme également la euh, gendarmerie a été déléguée. Mhm. Mhm. ci distribution semence yi bii noonu lay demee ci geneen pàcc. Mhm. mais beneen bi également mooy lu jëm ci wàllum subvention bi nga xam ne dafay dem suñu jeexalee foofu mais laataa ñu ci dugg mooy baykat yi am na ñoo xamante ni ci secteur bi la ñu ne jiite ay syndicat mais ñoom dañ ne dañu am mbetteel parce que ñoom nee nañu jor maanaam doyul leen wala doylu wala dañoo am ne lañ doon xaar ci njëg gi. dunul loo xamante daanaka mates na ko waaye yeggu fa mm-hmm. parce que ñu ngi doon xaar ne ren ñenn ñi ci ñoom xam ne dañ ne récolte gi gerte gi amul doyo bu tax ñu nekk di wax te ñeneen mm-hmm. comme amul tax ñu nekk di wax c'est vrai l'état du Sénégal am na effort yoo xamante na ko mais waroon a gën a kawal li nga moom la ñu gisee ndax mm-hmm. jàpp nañ ne lu ci bare doon xaar su amul day métti ci ñoom jëm ci wàllum dundin beneen boo xam ne dina ci bokk mooy lu weesu loolu léegi nag su paree ñu doog jublu si waat ci li nga xam ne moo di euh, coopérative yi ak lu jëm ci wàllum semence yi ak yeneen yooyu tamit démb bokkoon na ci ndaje mi loo xam ne taxaw na mhm. mais fu mu toll nii li ñu mën a tënkaale mooy état bu Sénégal jël na une décision jëm ci wàllum semence bi mais jubluwaale également ci li nga xam ne moo di commercialisation arachide bu fas yéene génn mhm. Mouhamed wàllum gerte gi ni ki démb fixé nañ prix bi mu jóge ci deux cent quatre-vingt dem ba trois cent cinq maanaam njëg daal vingt cinq francs moo ci euh, toftalu euh, soit la tonne à vingt cinq mille francs waaw xam nga booy xool man bi ma xiifee ba tey masuma dégg ñu ne dem nañ si at njëgu kilogramme gerte bi wàññeeku na li am kay mooy day yokk même bu nekkee ne yokk tey yenn saa yi du doon yokk yoo xam ne nii euh, yu euh, yuy satisfaire euh, baykat yi la seen wàllu boobu donc man pour man yokk bi juróom yenn saay ñaar dërëm ñetti dërëm mhm. donc pour man loolu luy am la chaque année pour man exploit bi nekkul foofu mais pour man exploit bi mi ngi nekk dëggantaan bu ñu demee ba Sénégal ñu liggéey ba nga xam ne nii ñii di baykat yi dinañ gis seen bopp si li ñuy bay ba nga xam ne ni dañuy dépassé maanaam approche wu saa suñu waree jaay gerte gi taxaw état ne fixé naa gerte bi prix kilogramme si si si si si njëg nangam mhm. mais bu nekkee bii je crois avoir euh, entendu que ñu ne euh, maanaam prix plancher la mooy. maanaam bu lu yees daal mooy. Euh, waaw mënut a yees. waay 305 waaw mais ku mën a jaayee loolu ku mën a ja ngeen mën a jaayee lu raw loolu yi tamit donc loolu du doon loo xam ne nii lu ñuy aaye la. Euh, c'est une avancée c'est vrai mais fu man war nañ gën a mën a dem ba nga xam ne nii en tout cas euh, baykat yi dinañ gën a gis seen bopp si li ñuy bay euh, état bi aussi mën si am gis boppam taxawaay bu am solo. Mhm. si wàllum transformation yi tamit si wàllum industrialisation moom loo xam ne daf koy accompagner ba nga xam ne nii lépp loo xam ne nii produire nañ ko. réew mi en tout cas dinañ ko mën a jëfandikoo au maximum. Mhm. ba bu ñuy génnee tamit lu ñuy génnee lu néew lay doon. Mhm. parce bu foo xam ne nii. demande bi moom mooy supérieur offre bi bu demee ba réussir loolu kon forcement njëg li dafay doon loo xam ne nii. dafay yokk dafay dafay yokk mais bu demee ba contraire moom mooy am nga am ay gerte yoo xam doo noo koy def wala ñu naan laan euh, mooy industrie bi nga xam te nii moom mooy moom mooy naal kii bi. Sonacos Sonacos mi ngi fii nii waaye maanaam dafa am ay tonnes yoo xamuñu nu ñu koy def loolu tànk bi nga am njëg li mënut a yokk. Mhm. donc ñu da ngay gis sax yenn saa ñoom dañuy préférer di ko jaay ay chinois ak yooyu parce que jàpp nañ ne foofu noonu moom moo gën a profitable pour ñoom. Mm-hmm. donc je pense que aspect yooyu nag war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax mais ñu am approche boo xam ne day mettre davantage le curseur sur intérêt wu. baykat yi parce que ñooñu in fine ñoo si war a génn war a injecté waat seen liggéey dans l' économie sénégalaise mu poussé wu waaye tamit si wàllum transformation industrialisation yi tamit ndaxte réew mu gën soo mën a gis boo mm, c' est important euh, Babacar lu jëm ci ISRA aussi ñoom tamit euh, li ñu leen dooleel lu jëm ci wàllum <coughs> koppar euh, ngir ñu mën a am quantité bu bëri lu jëm ci wàllum semence yi. waaw te xam nga côté boobu noonu euh, lu am solo moom la doon mais jàpp naa ne pour séentum atum atum atum atum atum déwén la. Mhm. maanaam at mii di ñëw la. mais ci lu ko jiitu. mooy mhm. fi ñu tollaale ni tembe fu am solo fi mooy wàllum récolte bi. Mhm. xam nga am na ci ñenn ci baykat yi c'est vrai waaw ñu ngi wax que ne dafay métti ci ñoom parce que ku daan am lu toll ci quelques tonnes set année si daaw bu ñu toll woon ci daanaka euh, ci nombre de tonnes boo xam ne ci vingt quatre mille la. Mhm. cette fois ci peut-être bien nga war a mën dem ci trente et quelques mille tonnes ça veut dire que am na loo xamante ni yokku na mais li nit ñi dul bàyyi xel ci xayma mooy dafa am benn wuute bu ci taxaw. nombre de tonnes yooyu noonu yokk ñan ñoo am nombre de tonnes yooyu parce que gis nga mbay dafa am ñoo xamante ni daanaka. Mhm. baykat lañ ñoo xam ne amuñu les moyens ñooñu mënoo leen comparer ak baykat yi nga xam ne dañoo am les moyens di bay. Mhm. ñooñu lu jëm seen wàllum production mën a di yokk chaque année. mais kooku maanaam doyoom maanaam am amam munoo ko yemale ak keneen kun booy xool bu baax du question que ne du sàggante que ne nombre de tonnes yokku na parce que baykat yi gis nañ seen bopp bu baax a baax li ñu produire quantité bi am na doyo mais ñu doon ay ndaanaan. Mhm. yor koppar yi yor espace yi yor moyens techniques yi pour mën di bay ñooñu peut-être ñoom la seen production di gën a yokk mais boo gisee ñenn ñi jiite baykat yi di jooy parce que ñoom xam nañu ne baykat yi lañ daan am peut-être bien dafa nekk lu wàññeeku. pour te dire que ni ne. Mhm. du du càggante que ne yokku na rek. que mbir mi war na mën demee foofu que ñoom dañ ciy gën a gis seen bopp non non du nombre de dafa yokk rek que baykat yi ne lamda yi ñi amul les moyens dañ ciy gën a seen bopp. Mhm. c'est vrai nombre de yokk mais ci moo tax mu yokku peut-être bien que ñooñu également def nañ les moyens mhm. dañ ko daan defee gën ko yokk ba mën a am plus de production mhm. Mhm. mais li ma a wax également mooy faaw nga saluer l'état du Sénégal parce que bi mu yegg si li gën a am importance boo koy xool moom la def comme cible mooy nan laa def ba mën a fay bor yi nga xamante ni daanaka moo taxawoon parce que soo effacé ardoise boobu noonu da lay nga mën a am waaw non da lay permettre non seulement nga mën am contrôle wala déggoo sa digganteeg ñi nga xam ne ñoo di opérateur économique yi mhm. parce que opérateur économique yi soo leen yoreelee mënu leen contrôler mhm. léegi soo fayee opérateur économique yi dina la mën a may nga am au minimum benn contrôle boo xam ne di nga ko am ci ñoom mën di diisoo ak ñoom ci lu yaatu lool mhm. léegi nag su loolu taxawee dina la may nga mën a am aussi également benn projection que ni ñiy nekk ay opérateur économique tey lu jëm ci wàllum semence yi ngi leen di jox ak li nga xam moom ngay séddale ndax mën nga leen ne contrôler de sorte que ne lii fii laa bëgg mu dem nii laa bëgg mu demee fa nii nii laa bëgg mu demee fa xamal moo tax loolu ñun dañu am benn poids bu am solo ñoom li ñuy am ci ay koppar moom la ñuy utiliser di ko exercer ci kanamu ñenn ñi nga xam ñooy citoyen lambda bi te ñu également ñooy am l'ouverture ak tamit capacité wu mën a jëflanteek ay chinois bu leen neexee ci prix bi ni ko bëggee mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag cette année ci mbir mi mën a am benn changement ku ñooñu bu ñu demee jënd malgré lu quantité bi mën a toll ñoom toujours dañuy nekk ci sensu collaborer ak état bu Sénégal pour que état bu Sénégal mën a moom tamit contrôler capacité bi muy soxla pour ces huiliers au niveau national. que ñu mhm. mën a am doyo boobu noonu mën a def la transformation sans problème. Mhm. donc fu mu toll nii da lay leer ne quantité bu mënti génn état bu Sénégal dafay mën a jël ba doyal fan lu koy wéet mooy am na déggoo non seulement ak opérateurs yi. Mhm. am na déggoo ak bailleurs yi nga xam ne ñoom ñooy financer secteur bi pour ñu ne la ñuy joxe ci lii mais mën na am tamit ci ñi nga xamante ni daanaka ñoom la ñuy wooyee. Euh, producteurs yi. Mhm. pour ñu mën a am coppar yu leen may ñu mën a dem jënd ji indiwaat léegi nag loolu yëpp fi muy dellu waat mooy la transformation au niveau national. Mhm. léegi transformation boobu nag moom la ñuy xalaat Sénégal su lay boppam jëndal boppam transformer lay boppam. lan lay jaayee comme njëg ci question parce que machine yu si bëri. ci jëfandiku voilà ministre bi mi ngi naan dañuy dem di jéggaani machine. di yu si bëri di ko jéggaani te war nañ koo mën a. xam nga ci côté côté boobu pàcc boobu noonu. Mhm. mooy côté mbay mi la boobu dinaa ci ñëw. Mhm. mais gis nga fu mu toll nii fi ñu taxawaale mooy ci cadre de transformation bi concernant usines yi nekk au niveau national. Mhm, comme Sonacos Sonacos moo tax c'était bien fait que ci biir nawet bi nga fexe jël Sonacos delloowaat ko cër bi mu mën a am. parce que bu nawet bi jeexee. nga doog cee ñëw mooy li ñuy woowee këtt na jon këtt na jon gi baaxul. Mm-hmm. parce que bu baax Sonacos du mën a peser moom capacité de production wala de transformation lan lay doon. Mm-hmm. mais soo ko anticiper dina may Sonacos mu am doyo ne nawet baa ngi ñëw mais man lu mu gàtt gàtt même bu dee ne nekk na trente trois cent mille et quelques tonnes man mën naa transformer temps. Mm-hmm. moom dina ko xam déjà balaa nawet bi di jeex kon bu nawet bi jeexee yow ba nga commencé jënd quelle que <coughs> na taxaw na. mais beneen bi ngay wax mooy. lu taxoon benn instant ma doon ñu doon insister ci ñoom seen jëm bopp gis naa ne ministre Mabouba Diagne il a bien compris le jeu ci côté boobu noonu mooy mbay mi nekkatul ne naa joxe jiwu naa joxe engrais. Mm-hmm. Mm-hmm. mais loo am au niveau Sénégal nga am lu toll ni lu mën a def ICS mu ngi fi nga am phosphate am leneen ak lépp. après engrais ak yeneen nga koy jënd ji ci bitim réew. di ko mm. def ci biir réew mi. loolu la njëkk ñaawlu démb. très bien léegi bu dee ne Serigne Gueye Diop. Mm-hmm. ñoom def nañ une collaboration dañuy signé benn protocole de sorte que ñu mën a am entreprise boo xam ne non seulement dina mën a produire mais transformer. Mhm. bay indi lu jëm ci wàllum engrais. kon jàpp naa ne secteur gi gën a am solo mooy les moyens yi baykat yi di soxla. Mhm. ñu produire ko à l'intérieur du pays. mais boo ko produire ba pare ñu mën ci am accessibilité. Mhm. mais ci biir accessibilité bi les moyens technique maanaam matériel yi ñuy soxla boobu moo gën a am importance. mooy samp usines yoo xam ne dina mën a léegi jéggi ay womat fas ay womat mbaam ay dàq ay nag. pour di bay. parce que kaw gi boo koy xool ñu ci bari problème gi ñu am loolu la mooy lan moo tax plus monde bi di avancé plus les moyens techniques di gën di bari mais Sénégal ñi ne ci ginnaaw ñoom seen mbir mu mel ni bougé wul. Mhm. parce que suuf ba fa ne. Mhm. mënatuloo ko sotti urée wala engrais de sorte que mu mën laa jox comme ni nga ko bëggee. dafa sonn parce que fas bi mënu koo deqi wala mu ëlbati ko de sorte que suuf gi am li mu mën. Mhm. yaa a des yoo xam ne ba ndëgee nee naa la fii li tolloon pourcentage bi yegguloon vingt pour cent mhm. espace bi ñu am war nañ mën a liggéey de sorte que terre irriguée ñu am ci minimum trente pour cent wala trente cinq pour cent parce que loolu moo nekkoon objectif bi ci année deux mille yi ñu doon dugg mhm. mais ba ndëgee ni yeggaguñ ci léegi nag pour ñu mën a yegg plus de trente pour ci terre irriguée au national dafay fekk ne faaw ñi def les bi defar ko ba mu war te loolu ay fas ak mbaam mënu ko wala nag mhm. mais loolu dafa am ay machines yu ko mën aussi le premier ministre ci ëngamloo buy amoon wax na tamit aussi ne opérateurs yi nañuy gën di produire. ba pare namit accompagnement bi ñu koy gën di. non opérateurs yi mënuñ produire lu dul état appui wul aspect technique boobu noonu. mu mën a nekk lu antu léegi nag léegi nag léegi ci côté boobu noonu. balaa ngay dugg ci accompagnement bi sax faw ñuy dem ci Serigne Gueye Diop Mabouba Diagne ak ci ñeneen ñu installé au niveau national. Mhm. des entreprises yoo xamante ni dinañ mën di créer des machine mhm. machine yi muy créer muy mën di dugg ci wàllum labouré dugg ci wàllum mbay dugg ci wàllum lépp. Mhm. léegi nag su loolu antoo ba pare nag. ñu doog a mën a toog nag ne nan la ñuy xalaatee baykat bi nga xam ne fu mu toll nii jox nañ ko les moyens techniques jox nañ ko jiw yi nan lañ ko toppee de sorte que moom ñu bëgg ci moom mu mën a antu foofu la question bi nekk. Mhm. te beneen bi ci ne mooy lu weesu loolu parce que ñu ngi naan renforcer les coopératives agricoles communautaires parce que <laughs> xam nga les coopératives agricoles communautaires. Mhm. ci jëm boppam dafa am solo parce que xam na moo tax foofu <laughs> mooy ndaw ñi nga xam ne dañoo préparé wu pour au moins ñëw dugg si ci mbay te ndaw ñi pour ñu mën a dugg si ci mbay day fekk ne. coopérative agricole communautaire yooyu noonu dañ koy renforcer. Mhm. mais pour renforcer ko du ay ngay doon maanaam euh, nit yi rek dem dugal leen fa mais lu weesu jiw yi ak lu weesu engrais ak yeneen mais da ngay jëlaat également les moyens techniques. Mhm. nga mettre ko en place ñoom su boobaa dañuy sentir déjà rek ne implication bi am na ci seen secteur. Mhm. léegi nag su loolu jeexee ba pare ñoom ñu mën a dem nag li ñuy wooye des organisations au niveau. ci communauté ci ci li nga xam ne daanaka moo di coopérative agricole yooyu léegi su boobaa l'accessibilité dans les zones du nekkati problème. Mhm. ñoom dañ lay mën a permettre ñoom ñi wàcc sur le terrain di mën a am contrôle ci baykat yi di leen jox les moyens qu'il faut. Mhm. parce que ñoom également doté nañ leen assez. léegi nag beneen bi mooy bi mujj mooy ISRA bi nga posé woon question bi. léegi nag foofu la jëm mooy Sénégal góorgóorlu na sot que génne na cent vingt def ko ci. mbay mi baykat yi am na ci ñoo xam ne seen xel dalul ba ndigi ni fi may waxee nii état bu Sénégal am na lu mu def comme sacrifice wala effort wàccee na ko mais nan ngay defal na baykat yi c'est vrai ku la dig añ bu la joxee ndékki war nga ko ku la dig ndékki bu la joxee bu la diggee añ war nga ko mën a gëm ci ci ni muy amee mooy mhm. effort yi nga def ci ren jii mais leneen li ci yàlla ko yor mais effort yi nga def nii ndax jotul fu mu toll nii tembaale à l'instant nii nga préparé waale beneen at bi war a ñëw mhm. loolu moo waral bi ñuy ISRA waru foon mën a ñàkk parce que ñoom ñoo yor jëm ci wàllum jiw mhm. waaye Sénégal moo war a mën dépasser fu muy jëlee jiw ca bitim réew parce que on parle d'une économie endogène wala des activités rentables endogènes mhm. national mhm. moo tax ISRA léegi war leen dooleel pour dooleel gi fu mu toll nii fii mooy lu weesu li nga def comme benn université bële wala nga def ko feneen mooy ISRA dimbale ko ci benn budget boo xamante dina ko permettre mu mën a am léppam mu mat sëkk te budget boobu mooy ñëw ëmb jël bi moo ñëw ëmb conservation bi ba ci ëllëg jëm ci wàllum distribution bi donc jàpp naa ne équation bi fi mu nekkaale fu mu toll nii boo koy xool ci ñetti aspect la. Mhm. mooy les mooy technique la production euh, de ces moyens technique au niveau interne. Mhm. mais beneen bi mooy tamit lu jëm ci wàllum conservation ak tamit disponibilité semence bi au niveau national. yii daal jàpp naa ne bu ñu ko solutionné. Mhm. côté boobu lu ci baree bari ci wàll gi mën naa saafaraw mais ak loo mën a wax moom. jàpp naa ne ñu ngi góorgóorlu ci côté boobu te war naa mën a gën a wéy. Mouhamed. waaw waaw kay moom lu mu toj am na solo de macha allah <laughs> moom moom xam naa ne ko war ministère de l' agriculture rek. non dina fas yéene liggéey ak ma buuba waaw fu nga jéem a dalal ma buuba <laughs> Diagne ah. uh-huh. bon je pense que Babou wax na lépp quoi. Uh-huh. waaw Babou wax na lépp je souscris euh, totalement à ce qu'il a xam moom expert la nag. Mm. déedéet du ma ci expert de. expert c'est important mu wax lu jëm ci wàllum. Euh, production bi xelam daa màcc jëm ci wàllum mbay. Uh-huh. Mm-hmm. jëm ci wàllum semence bi mais jëm également ci wàllum engrais bi comme ni nga ko waxee ay ICS yeneen ñu ngi fi donc war nañu yenn produit yu ñuy bañ di ko jéggaani di ko defaree fii ci suñu réew mën koo jëfandikoo dina tax euh, njëg bi dina gën a yomb wala sax production bi dina gën a euh, mën a yokk comme ni ko Babacar euh, Kébé waxee dañuy daal di